ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant wax ne asalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi màggal allah taala wa tabarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ñu suñuy rëcc rëcc jéggal ñu suñuy njuumte noo ngi ñaan yàlla weeru koor wi ñu dugg lépp lu ci borom bi dig jaamam ñu ci aw yiw yàlla nañu ko yàlla defal lépp lu ci nekk aw safaan yàlla nañu teggi ñoo ngi ñaan yàlla mu booleen ci ñamuy goreel ba yóbbu leen ajjana weeru koor weeru yaakaar la weeru defaru la weeru jege borom bi la xëy na loolu moo tax su weeru koor ñëwee réew mi yépp daanaka diine la bëgg di waxtaana waxtaanalante seen biir ngir lan mu am ay bind yu ñu mën a jëriñoo mën koo def seen feuille de ngir mu war leen baaxal tey sunu tomb waxtaan mu ngi jëm ci xusnu mooy rafetuk jëflante ak nit ñi kenn ku nekk ci ñun na xool boppam mu yëg ni bind bi daa ñëw pour jàjju ko bu fekkee dafa nekkoon ci njuumte jubbanti ko su fekkee mi ngi woon ci yoon wu baax wi daf koy dëgëral su fekkee ni dafa nekkoon ci yoonu boppam daf koy corriger pour wax ko nan la war a mel mbokk yi xam ngeen ni diiney islaam dafa am ay ràññeekuwaay yu am solo bokk na ci rafetu jëflante kenn ku nekk ci nit ñi da nga war a fexe jëflanteeg sa moroom jëflante bu rafet ndax diiney islaam diiney jël ak joxe la waaye diiney Sosial la agit dundu ci orma société bi ñep ku nekk ormal sa morom ba jox kenn ku nekk akam bu de sa kilifa la wala muy kilifal jambur bu de sa morom la wala ko la islaam sàgganewul benn buntu ci luy jëriñ doomu aadama ndax bëggul nit nekk fas zun xaliisa am na ci nit ñi tey yal yàlla dëpp leen seen ak njàmbaar yépp dañoo jàpp ni mooy foñu foñu mooy koo xam ni mënoo jëflante kenn ba sax da ngay tàggee sa bopp naqari deret loolu moom ak islaam fekkuñu dara léeg nga ñëw ci ab koñ dégg ñu naa la paa bi paa bu naqari deret la góor googu nañu wéet ak moom ne ko nekkoo ci de ci leneen nga nekk léeg ñu ne xale bu góor bi xale bu góor bu naqari deret la nañu ko woo ne ko lii nga nekk nii du islaam de islaam diiney neex dret la loolu moo tax mu tudd al islaam ñu jëlee ko ci salaam am jàmm dangay am jàmm yéene ko nit ñi jàmmal nit ñi ndax loolu mooy tax pénc mi ñu mën fay dëkk te kenn du am lu ko metti mbokk yi jëflante bu rafet kuwaay bu rafet la ci diine maanaam ab xàmmekaay la bu ñuy xàmmee jullit dëgg mooy lewet neex deret mën a jëflante séq ak ñëpp te yooyu melokaan da koy fekk ci njiital xeet wi muy yonent bi sallallahu alayhi wa dafa nekkoon ku lewet ba borom bi di ko wax ne ko walaw kunta faddan galidan lam faddu min hawlik lu tax fa bima rahmatin min allahi linta lahum borom bi ne yonent bi ci sababu yërmande yàlla nga nooyee nooy ba sahaaba yi di yéeg sa kaw allahu akbar doo ñëw ci jotaay ñu seetee la waaye foo toog ñëppay ñëw wër la ñii yéeg sa kaw ñu di yéeg sa tànk ñii di def nag ngay kaf àgg na ci yonent bi sallallahu alayhi mun naa jaaxaan ci biiri saxaabaam wala mu sóonu tëdd li la koy wan léeg-léeg ku ko xamul woon bu ñëwee ni mu mel ak saxaaba yi du sol lu ñu ko xàmmee du def lu ñu ko xàmmee du toog toogin wu ñu ko xàmmee bal dafa yem comme ñépp te yàlla may na ko ku mu toogandool sut la ku mu taxawandool sut la loolu la ko yàlla may foo toll boo xoolee rek di nga xam ne kee mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga kafam ak mëneem ak saxaaba yi seen biir ba doo ko xàmme tax na léeg-léeg bu nit ku xamul ñëwee di laaj danaan kan mooy yonent bi ci yéen kan la lu tax dalay lay wan ni yonente bi ni mu wàccee woon boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi diine ji diine yi rafet jikko la diine yi rafet jëf la diine yi lewet la diine yi neex deret la waaye du diine yi tàng du diiney naqari deret du diiney jafe déedéet kon rafet ak jëflante ci say wayjur sëy jegeñaale muy sëy mbokk ba ci say doom ba ci say dëkkandoo ba ci ñi ngay liggéeyal ak ñi lay liggéeyal koñ bi ba jàkka ji islam bàyyiwul benn benn benn benn rafet jëflante ba oto bi ngay dugg ba fa ngay liggéeyee kon bàyyiwul dara mu mel ni li islam jàngale buñ ko appliqué woon mooy dangay gis ni dëkk bi ñépp dañuy mën a nekk ci jàmm soo seetee dëkk yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a appliquer ak as néew da nga yéemu ci yàlla boo demoon fu mel ni jakarta ci indonésie nga dund fa benn waxtu ak nit ñi da nga naan non man est ce que fa ma dëkk islam la ñuy dund wala leneen la ñuy dund yar gi day mat sëkk ci sa moroomu nit yëgil gi day mat sëkk ci sa moroomu nit waaye cofeel gi day mat boo dajeeg ñoom ci at walla nga ànd ak ñoom tukki da ngay xeet sa bopp bu ñuy wax du ñu wax ci kaw bu ñuy waxante dañuy séq même bu ñaar jote woon di xuloo yow mi ci bokkul doo ko xam doo ko xam bu ñu xuloo woon ba seen xol jóg ndax nit lañ bu ñee sallu ala bi rek ku ne bàyyi صلوا على النبي والله نيال نوي خيب فلو بولين صلوا على النبي رك كورك الله وصلي على محمد رك باي لم يورا نون نيو آتي خيخ جولي لين تي يونان تي بي كونا جولي تي يونان تي فردم نيو بودون نيون في نيال دي خلو غني جولي لين تي يونان تي بو موتو ني ساقا والي يونان تي والله أبدا من تيس أك يراندي كو فو قمي نيت ني دي خلو غني كو جولي لين تي يونان تي بو موتو ياك يونان تي بلاي بولي تي فار لا ساقا نخ دالاي وان ak tàngoor day moom ci concours tàngoor la nekk moom ci concours mbon la nekk ci concours wax lu bon ak jëf lu bon la nekk kon mbokk yi bokk na ci rafetu jëflante ba ci ñi soxla di ñaan ñiy yelwaan ba ci ñi ngay toogaaleen ba ci kibaaru sinn ba ca mag ñi mbokk yi xam nañ ni islaam diine jaamu yàlla waaye du rek diine yi ibaadaat la ak muamalaat ak axlaaq muy wàllu jaamu yàlla yi julli yi woor yi jàng alquran nawaafil yi loolu mooy cosaanu ji waaye da topp lu koy taaral mooy muamalaat li ñu tuddee al adab ay teggin ak i jëflante ndax li ngay julli di ko jaamu yàlla moo war a feeñ ci ñi ngay dëkkal di jëflante ñoom lu tax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli da fóot defar la ba boo nekkee jullikat ku la gis da koy xam ci sa jëflante ak nit ñi waaye koo xam ni day julli ba pare bu joteeg nit nga ne ko yaa fi doon julli léegi bu yaa fi doon julli léegi kon kooku mi ngi gymnaste mais xamut li muy julli pour lan la danga nga fekk ci suñu biiri jàkka nga xamante ni néegu yàlla la dangay ngay fekk ci biir jëflante bu ñaaw ci entre imam bi ak ma'muum yi bilaal bi ak ñi gérer keesu jàkka ji ak ñiy toppatoo jàkka da fekk ci ñoom xam ni ñii ci jàkka lañ nekk mais jànguñu nan lañu war a gérer jàkka da ñëw ci jàkka gis kenn ci mag ñi yore yaram xale hey hip dàqante xale yi da nga koy gis est-ce loolu lañ ko sant est-ce mag mi dañ koo sant mu yore yar xale bu yomb ca biti génnal dellu ci kër ga mais déedéet yow da fi nekk pour defar nax xale yi pour ñu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon nax xale yi pour ñu julli si ak goon na ci di leen nax ba day jël ci gu tàndarma ci gu tàndarma takku ko ci bantu jàkka ji yor ko ba xale yi tolloog moom ngir xale yi ku ñëw mëna wit kon xoolal ma xale yi ci biir yi dañ doon julli xale yi di dàqal ci seen biir kër këp di wërante ñu ne tekk di julli ndax xale ñeme na koo def ci suñuy jàkk ñun ah kenn waxul nañu booyal xale yi ñu yàq ñu ñu ñu ñu ñu ñu perturber nit ñi noonu nag bokku ci tamit duñ ñi lee mën na nekk ba tax ñu nekkal lu warul nekk xale xale la dañoo bëgg ñuy ñëw ci jàkka li yuraadu yi ngir ñu tàggatu ba ëllëg ñu nekk ay magi jàkka waaye bu dee bu ñu ñëwee ñu dàq leen duma leen dóor leen xanaa mooy dem leen ca dara suñ ba kon kon loolu ñu xam ne ci jàkka ji jëflante bi dafa war a rafet waaye beneen bi ci biir jàkka ji da ngay fekk nit ñi dañuy julli mais xol yi day sorewoo te jàkka dafa ñëwoon pour boole ñu waaye da fekk ci biir jàkka ji ñun ku nekk la nga gëm ngay indaale man bu may dem ca jàkka ja mbayeen laa damay indi mbubb mbayeen wane ne mbayeen piir la man bu may ñëw jàkka njóobeen laa damay ñëw wane ne njóobeen piir la man bu may ñëw jàkka mbengeen laa damay wane ne mbengeen piir laa li ma di jub mooy appartenance yi këru këru diine yi nga xam ne kenn ku nekk danga ñëw ci jàkka yëgatoo wa annal masaajida lillah mais da nga ñëw pour prôner tariqa bi nga bokk ci jàkka ji loolu mooy dem ba ci biir poñ yi dangay ngay fekk jàkka bii ñu tuddee ko jàkka ibaadu ku dul ibaadu rek doo fa jullee di nga fekk ci koñ bi ñu nekkul ibaadu mais pour ñoom jàkka ji nekkatul jàkka yàlla mais jàkka ibaadu la du ñu fa jullee da ngay gis mu jaral leen ñu jéggi koñ dem ba koñ ak koñ dem ca jàkkay ndengeen ndax tariqa ndengeen laa bokk fa laa war a jullee paa bi jéggi koñ bi dem ba ne la dem te jàkkay njóobeen ndax Pola bokk ñoom loolu lañuy ñuy jullee mais kon léegi koñ bi lan moo ñu war a boole léegi ah sunu yàlla mënta boole ku du mën a boole ndax am na kon da ngay fekk lu mel noonu ci biir mbokk yi suñu diine diine jéggale la waaye day romb jéggale xam nga jéggale rek lu baax la mais islam jéllale la bëgg. dafa am benn différence bi nekk ci entre jéggale ak jéllale jéggale mooy nit def la nga mën a fayu kon ko jéggal naa la geste bu rafet la waaye jéllale mooy nit di la def nga mel ni ku yëgul ni mi ngi lay def faafu wasfahu jéggale leen jéllale leen loolu day feeñ ci sa feeñ ci ñi ngay jëflanteel ba ci jàkka ji mën nga toog ci biir kër gi njaboot gi dina di def lu la leer ni neexu la waaye léegi-léegi nga bàyyi rek mel ni ku yëgul nit ñi dem papa kii ngi def nangam fekk yaa ko gën a gis yaa ko gën a yëg waaye dafa am looy jàng looy jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa bu mu nee toog këram yaa Aysa ak yaa ak Xafsa ñuy naan fonde di ko sotti wante ci ay soxla yonente bi kii tibb mbàttam au lieu mu tax mu sotti ko moroomam kii tibb bu sotti ko moroom yonente bi dina ko day day muuñ rek bu doon kenn ci ñun nooy def ah tontu mooy sama ala cootu bee xam do danga dof way yuuxu mbëkk foo def yi nii gis nga ko mais yonente bi ay soxnaam bi def loolu mu jëllale mu jëllale mooy moom mel ni ku ko yëgul loolu daf ak melokaan la nag ci mbaax yàlla nañ ko yàlla may beneen bi islaam diine la boo xamante ni du fay jëf ju ñaaw jullit bi am bon comportement du fay jëf ju ñaaw ndax jullit bu am bon comportement amut lu ñaaw ku amut lu ñaaw mënoo fay lu ñaaw ñaari waaye dañoo xuloo sànn benn waa ji day dagg saaga lay dagg kenn ki da koy xool mel ni kuy bëgg a wax noppi ba jàgg rangoo ñu tuuru paa bi ne ah wër na saaga ba sonn gisul saaga amu ko amu ko ndeysaan kii la ñu yàq xoolal waa ji da koy xool bëgg a wax xool kay di ko tafaari saaga mu di ko xool ba jàgg rangoo ñu tuuru góor gi ne ma wër na saaga ba sonn ci xolam am ko saaga am ko noonu la jullit war a mel waaye bu ñun ku la ni damay boo moytu la da nga ko saaga ba saaga chef de quartier parce que dañuy denc lépp moo tax mbokk yi borom bi tabaraka wa daf ñoo jàngal ci benn aaya bu général wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla nee rafetal leen def leen njëkk ndax man yàlla loolu laa jeune bi dafa war a rafetal jigéen bi dafa war a rafetal ci kër gi danga war a rafetal ci dëkkandoo yi da war a rafetal ngir yàlla bëgg la ndax inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla dafa bëgg ñuy def njekk te xam ngeen ni rafet ak jëflante sabab la ngir dugg àjjana yàlla ñu yàlla may àjjana rafetu jëflante sabab la ngir dem àjjana abi masudin al badri ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xuusiba rajulun mimman kaana qablakum falam yujad lahu min al xayri shay yonent bi di nettali sahaaba yi ne leen xeet ya leen jiitu woon am na te koo xam ni borom bi da koo xisaab malaaka yi hisaab ko ci ay jëfam yu baax gis ñu dara ci ay jëf amul fëyam amul dara ci jëf yu baax waaye benn mbir rek lañu ñu seet illa annahu kaana yuxaalitu naas mbir bi mu am mooy daal dugglante woon ak waa koñ bi day xëy duggante kër yëpp nuyanteeg ñoom taf ak ñoom fiir ñoom lépp te borom alal la yàlla da koo may alal may koy doom mais ci wàllu ibaadaat amu ci dara lu ko mën a yóbbu àjjana lan moo ko defee léegi muamalaat illa annahu kaana yuxaaribu nnaas dafa daan jëflente ak nit ñi te xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa xayra fi man laa ya'laf wala yu'laf nee na yiw nekkul ci ku dul miin te duñ la miin nga dëkk ci koñ bi kenn ñemewu la ku bon nga nga dëkk ci koñ bi ñuy joxoñ sa kër boo rombe ñu lay joxoñ xale yi kenn ñemewu la booy ñëw xale yi daw bu njun football seen la paa ñëw na bu yaboo nga xam ne paa bi moom du paa bu islam reconnaître nit ki baax bu ñëwee ci koñ buy ñëw xale yi dañuy daw ji la jàpp mag ñi dañ doon wax ne mandargay mbaax mi ngi yem ci papa ñëw na ñëpp daw ñëpp dawandoo lan moo tax dañu lay yàkkamti loolu mooy ak mbaax ku mu nekkul woon ci yow fexeel mu nekk ci yow fexeel ba xale yi ñeme la koñ bi nañu la ñeme amal ak ñëpp jàmm waaye waaye kanam du kaso waaye koo ci tëj mu xam ko sa xar kanam gi nayyil ko bennil ko na rafet loolu lañ bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ci ay ibaadaat waa amu ci dara waaye ñu xool muamalaatam illa annahu kaana yuxaabitu nnaas borom alal la ba pare dugganteeg nit yi te lu jafee ngi noonu mus ngeen gis borom alal bu dugganteeg waa koñam déedéet mom kay yow nañu lay joxañ rek del waxee baram mais faale woo kenn ñu yow ñu so soo defee faale woo kenn dugg génn yow pour yow sa alal tax na jàkka ji boo sax dañ la wara dalal place quoi pour ñu ne ngi place patron yi la place commerçant yi la ni place nangam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam waji limuy am am alal ay njabotam ñi koy liggeyal daf leen doon wax ni nit ñi ku leen leb diir jot mu war laa fay fayu la bu ko laaj fay bi effacé leen ko ci carnet bi loolu mooy jéggale xoolal liggéeyloo ay nit te mënul ñàkk moos ñu leb la waaye comme moom am na alal doyloo na alalam mu ne ay liggéeykatam bu kenn fayi ko kenn bor ko kenn def ku leen leb ngeen bind diire ba mu jot bu ñëwee fay leen baax na bu fayul effacé leen turam ci liste bor yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee bi ñu xoolee ay jëfam ni mu mel dëkkandoo yi waa koñ bi ak jëf ju baax jooju ak mbaax gi malaaka yi ne borom bi kii da amul dara ci ibaadaat mu ne yàlla ne xool leen leneen ñu xool ay jëflanteem gis ni ku doon baal nit ñi na يلا نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه يلا نحن بدي مباح أكبال لدن دف ما كوكو داق بانا كومم الله أكبر يلا سبحانه وتعالى نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ما كوكونا ييكي بالي أجيجل جيلل kon bàyyi leen ko mu jàll mu dem àjjana mbokk yi kii lan moo ko may daraja bii lan moo ko ko may mooy xusnu taamul mooy rafet ak jëflanteem ak nit ñi mbokk yi ñaata ci ñun tey boo leen xooloon ci jaamu yàlla da nga leen naw waaye ci jëflante zéro ci wax ju gàtt ñàkk teggin ñàkk xorom nit nag kenn du ko àttee ci ñàkk teggin ci heure boobu rek ngeen dafa ñàkk teggin toujours da ngay xool borom ban circonstance la toll waaye borom it nay xeex xoolam xolam moom it nay xeex ak xolam ne loolu di waxat ak nit ñi ci wax ju rafet ci geste bu rafet ci jëf ju rafet nit di ko dàq jaamu yàlla xeeb ko lool ngeen dajee yowmal qiyaam moo ëpp la daraja wallahi ladi laa ilaha moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla yónni wuñu ci xol yi déedéet déedéet nit diñ ko xeeb ci ñàkk demam jàkka donte lu baaxul diñ ko xeeb ci ñàkk jàng alquran donte loolu baaxul waaye bu ñu la tegee teg waa koñ bi teg ko moom waa koñ bi ku ñuy tànn moom te yow yaa dàq julli yaa dàq woor yaa dàq jaamu yàlla mais ci wàllu dundiin ak dëkkiin ak social suñu laajee waa ko bu ñu ah man de kii kii kii moom a gënal bu ñëpp génne ni kii moom a gënal mooy kii li muy julli tekkee bu dara loolu lay tekki kon yow miy julli daq julli dàq jaamu yàlla roy yonent bi ci côté boobu waxuñ la nga roy ko ci lii rek dañ ko ñu roy ko ci lépp walakum fi rasulillahi uswatun xasana da koy roci rek sa julli gi ak sa woor gi dafa war a motiver sa cër yi ba fu ñuy mbax mbaax ci koñ bi yow la ñuy lim wala bu ñu limee kenn teg la waaye moo dàq julli moo dàq jaamu yàlla waaye faalewul kenn dafa ñàkk yar dafa ñàkk teggin respecté wul kenn foo ko dégg borom boroom nit ñaa ngi koy yee ñu ngi ko naan li nga nëbb ak li feeñ bokkul te waruñoo am benn benn benn wuute bi li nga nëbb ak lii feeñ dafa war a nekk benn ndax nit li ci xolam mooy génn ci cëram su fekkee da ngay julli di jaamu yàlla te jubandoog nit ñi mooy sa xol mbaax ne wuti kon loolu ku nekk na ci jéem yar boppam bi ci jiitu ci jëflante bu rafet mooy jëflante ak say waajur en tant que jeune ba nga nekk mag da nga am ay waajur te xam ngeen ni wayjur doom du màgg ba tiim wayjuram loolu mënul nekk yàlla defu ko doom mënta màgg ba tiim pàppam wala mu tiim yaayam déedéet ndax al waladu bi kasbi abihi dafa bokk ni àq ak njëkk nga des mbaax ci sa wayjur soo dee dund diine diine bi ngay dund daf la war a motiver nga di ko dund ci sa kanamu papa ba sa papa ñeme loolu ñeme ko donte sa papa am na lu mu nekkoon par exemple yaa ngi dund ci kër gi sa papa tijaan la wala murit la ñu baal ma ci tur bi lu may faral di tudd tur lu bari mais ala sabili misaal ku nekk ci ñun loolu dafay dal nga dund ci kër fekk sa papa dafa am ci beneen kër gu mu bokk mais yow pour nga daawa sa papa dugal ko ci li nga nekk jox ko li nga nekk. nan nga ko war a doxalee mooy danga nga war a yore comportement yi yonente bi yoroon sallallahu alayhi wa soo ko yoree ci kër gi wax ak sa papa du la jafe sa papa wax ak yow du ko jafe waa kër gi ñëpp koy wax ak yow feeg buntu wax mi ngi ñëw di nga mën a am li nga bëgg waaye boo bëggee dund ci kër gi nag yóbbu ñëpp safara su boobaa dañu lay ragal te it nag safara yoroo ko moomoo ko safara yàlla boole wu ci kenn même yonente bi ñemul wax kenn da nga dem safara safara moom mbiru yàlla la xoola yonente bi bi ñu ko dóoree gaañ ko lan la wax kayfa yaflahu qawmun faalu hada bi nabiyihim aw nit wu dóor seen yonente gaañ ko nan la ñuy demee àjjana yàlla da koo teel a corrigé donc ah laysa laka min al amri shay nag mbiru àjjana moom domaine privé la kooku moom man may décidé mais du yow yaay décidé bépp ahlu sunna bu dégg léelu war ngaa taxaw léegi lañ nag nit ñi àtte la yaa leen yóbbu safara ak yaa leen fa yóbbu du benn am na ci nit ñi ñoo xam ni boo nee yàlla nee na ku def lii dem safara ku def lii dem safara ñu ne ah yow xanaa yaa moom safara par exemple man exemple laaj man dama koy dégg dégg dégg bi dama koo miin léegi Oumar Sall moom bu yoroon àjjana kenn du dugg te fekk koy wax du ñu xam xamuñ yow da da ngay nettali yow moom xanaa yaa moom àjjana yow moom nanga parce que ñi koy def mooy ñu tëñi dafa am ñu tëñ ñoo xam ne bëgguñu jub te li ñu tekki gêné na leen il faut ñu génne seen xol mais il faut ñu attaqué la mais ci biir kër bi ngay dund fexeel fa sa papa nga wan ko ak yar ak suufe bu jéggi dayo Abu Barda nee na dafa fekke Ibnu Umar ak benn waay bu jóge Yaman waa ji mi ngi yenu papa ji wala yaa ji di wër kaaba gi naan seede leen bis ni ki tey may gëlee la gëlee moom boo xamante ne tàggat nañ ko xam nga gëleem bu ñu tàggat noo ko def noonu mu def ko seede leen ni tey may gëlee moom bu ñu tàggat di wër kaaba gi bi mu ko waxee ba pare nag tourné ñëw yem ci ibnu umar ne ko ki ma bootoon di tawaaf sama yaay la wallahi ladi la ilaha gayruhu même reprise da nga koy gis boo demoon ci Màkka ndeysaan yàlla a nga dem aj nga gis ku yanu wala ñu yore ay sario teg ci nit benn waaye ñaari chariot leer benn fii benn fii ay màgget rek comme dama sof rek ma laaj ko ne ko ñii loo séq ñoom mu ne haada abi haadihi ummi allahu akbar xam nga ñoom bu ñuy uh, wër kii bi ak tréteaux yi ci kaw dafa sori même ci kaw ñu fay wër di tawaaf day metti mooy étage boobu tiim noonu moo gën a gudd te xool waa ji téye fii téye fii di poussière mujj gi ndeysaan ma ne ko xaaral ma jàppale la ci kenn ki ñuy ñuy dox di sawaab di waxtaanaale xoola mu lu mel noonu kii noonu la doon def moom dafa boot yaay ji di daw bi mu ñëwee ni ibnu umar ndax fay naa sama yaay ibnu umar ne ko la wala bi dafratin wahida nee na fayoo ko de donte benn xajjat fayoo ko xanaa da ngaa fàtte bisu matu waa ji ne wallahi wax nga dëgg fayu ma sama yaay gaññu première matu doom mënu koo fay yaayam gaññu première matu nga xam ne jigéen bi fa toll boo xoolee kanam bi léppay changé loolu boo ko xoolee ah, doom mënta fay yaay ak noo toll beneen bi Abu Hurayra ku mën a joxe exemple la moo tax dañuy war di jàng dundam bu baax ci mbaax gi mu mbaaxoon ci yaayam Abu Hurayra Abu Hurayra dafa dugg ci islaam yaayam nekkul jullit bu Abu Hurayra dawee dem ci yonent bi ñëw yaayam xas ko xas yonent bi Abu Hurayra bu ñëw ni yonent bi ñaanalal sama yaay sama yaay lu may wax ci yow lu ma métti sama yaay a tax dama ko bëgg waaye kon ñaanalal ma ko mu tuub yonent bi ñaanal ko Abu Hurayra daw bi mu ne tëll ci kër gi yaa ji daw ubbil ko fay ko nuyoo ñëw ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah Abu Hurayra jooy lënganteeg yaa ji kon Abu Hurayra bëgg yaayam ba ñaan pour yaayam tuub ñun nan lañu mel ci buntu boobu kii nettali hadis bi nee na dem nañu aqiq dëkku Abu Hurayra neena buñu doon dugg dëkk bi rek ci buntu dëkk bi fa le kër Abu Hurayra nekk neena buñu bu ñuy ak dañuy Abu Hurayra ne assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata buy duggal lo lay wax assalamu alaykum yow sama yaay yaa ji ne ko wa aleyka assalam wa rahmatullahi wa barakaatu yarhamakumullah yàlla na la yàlla yërëm yow Abu Hurayra fekk Abu Hurayra daf ko naan yarhamuki llah kama rabbaytini sagira yaay yal na la yàlla yërëm comme ni nga ma yaree ma nekk xale rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira loolu ngay ñaanal sa ñaari wayjur yàlla yal nga yërëm samay ñaari wayjur comme ni nu ma yare ma nekk xale xoolal yar ni mu mettee yërëm la yëkkati la ba nga gis lu mu gisul kon tey nga war a dem mbokk yi yaayu abu hurayra lan la doon tontu abu hurayra daf ko naan fa jazaka allahu xayran wa anka yaa kama barartani kabira ne ko yal la yàlla fay yàlla la yàlla jéggal yërëm la comme ni nga baaxee ci man mbokk yi kon sa digganteeg sa yaay sa digganteeg sa papa dafa war a lewet dafa war a nooy waroo yëkkati seen din baat waroo koo yëkkati bu ko def benn yoon kon rafetal jëf yin jëm ci sa waajur xamal ni yow ak sa poos sa papa leen moom xamal ni yow ak sa poos sa yaay leen moom góorgóorlu ci bu baax a baax a baax dil say frère ci biir kër gi jëflante bi na rafet say mag say rak yu góor yu jigéen ñooñu da ngay rafetanteeg ñoom jëf ndax yaag ñoom yéen a bokk yéen a bokk benn biir muy yaay yéen a bokk papa wala ñii nga bokk ak ñoom yaay ñii nga bokk ak ñoom papa yow yaa war a nekk ambassadeur yonent bi sallallahu alayhi wa ci biir kër gi kër gi ngay dund te nga nekk ahlu sunna yow yaa war a nekk représentant yonent bi sallallahu alayhi wa ku la xool da war a naw ci lépp nag ci lépp ñu waxee jëm ci yow def lu bon nga jéggale walla nga jéllale suñu jëmee ci yow lu ñaaw nga jéggale nga jéllale fexe yow li nga am bokk koog ñoom donte ñoom ñu ngi téye lu ñu am contre yow mais yow lul ba séq ak ñoom gis nga olof nee na bët bu rusul toj nit di nga ko wan jikko ak seraanga bu rafet mënatul lu dul jëf ci yow lu baax mënatu ko mbokk yi say frère yi nga nekkal ci kër dafa am lu la yàlla wut fëgalee te ñoom jotaguñ ci te xanaa kay doo ma ne yow lii doo ko denc xañ ko say frère yow li nga yëg ci julli ba ngay jóg ci julli ñoom mënuñu ñuy nelaw li nga yëg ci mën a sa bopp ba ñoom ñuy dugal ay jigéen li nga yëg ci mën a sa bopp ba doo bàkkaar ñoom